non Graw est-ce <laughs> waaw gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa man dama yeesal sama njébbal ci sama sëriñ sama wasila muy Alaaji Fàllu Mbàkke yal yàlla kowe te taasuñ ci barkeem di fettali sama kóllëre sama diggante ak sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makarimal Axlaa donc su ma fi ñëwee li xew Sénégal gépp moo ma fi indi bi may ñëw rek lu mat fukki nit woo nañ dap nañ ma ne ma nanga ñu laajal suñ 400000 400000 yooyu nag li tax nit ñi di ko laaj mooy pétrole bi ak gaz donc loolu moo nu indi ndax bu réew mi yëpp dee fecc di ko kaas ñun Géejawaay kenn war nu cee jiitu kenn war nu cee jiitu en tant que kiñ ko accusé muy le maire de la ville de Guédiawaye mooy Aliou Sall donc danoo ñëw ak civilisation ak dal li ñu jàngal ci sunu parti def ay revendications pour que pétrole bi ak gaz bi leer nit ñi war nañ ci am lu leen leer parce que vraiment daal Frank Timis wax dëgg yàlla warule doon étranger ñu lu 90 pour cent jëm ca bitim réew à 10 pour cent yi dugg Sénégal normalement comme que yàlla baaxe nanu ci barke Serigne su baax si fi ne ba pétrole ak gaz feeñ ci réew mi ak or ak fer ak phosphate waa Sénégal dañoo war a jóge nag ci togg añ tibb ci reer dañoo war a jóge ci ndekkee mburu mu fanaan suñ doom yi dañoo waratu waratuñoo am problème mu jàng waratuñoo am problème mu santé waratuñoo am dara retombé yi dafa war a bëri ba nga xam ne gannaaw ñun ci ñun la ñëw dafa war a bëri ba lépp dafa war a dellu siwaat nag ci askanu Sénégal comme que nag yaa un flou kenn xamul on dit des fois que rapport yi demul ñii ne dem na mais Seynabou Ndiaye Ndiaye Diakhaté vraiment maa ngi koy remercier c'est reconnaître na ne y a 17 dossiers sur la table du procureur alors que ci 17 dossiers yi bu Petrotim mu ngi ci kon moom def na travail am ñuy soññ nag la procureur moom mu def travail am li nu gën a jaaxal nag mooy Khalifa Sall dañ koo woo téye ko Karim Wade dañ koo woo téye ko pourquoi kii nga xam ne moom waxuñu ko ñun bitim réew ko wax Franck Timis tudd ko rapport yi jóge bitim réew pourquoi moom ñu bàyyi ko muy traîner ba léegi ce qui veut kon boggal ma góone rek Sénégal ku fi amul mag doo fi ree doo fi reere mbaa boo reeree doo reere la neex donc dañu ñëw en tant que député en tant que responsable des femmes de mon en tant que PDS ñëw di revendiquer si di laaj suñuy droit d'abord suñuy 400000 man j'ai une grande famille xam naa bu ñëwee dana ma jariñ dara en même temps affaire fulu bi fi am lañ bëgg mu leer. lii mooy wax ji lii rek moo fi indi ci jàmm ak dal. mais effectivement démb il est euh, comment le président l'accusé hier euh, à sa sortie euh, au tribunal il se disait soulagé. il se dit soulagé. waaw xam nga bu ko neexee mu wax loolu. parce que puisque le président c'est son grand frère. ah bu doon man tam xañ na dinaa hésiter peut-être il se dit soulagé mais ñun loolu doyuñu li ñu doy mooy na dem. table euh, dossier Petrotim bi ñu teg ci table procureur ñu teg ko ci yoon atte ko ni ñu atte woon Karim Wade jaxran pendant des mois Sénégal yi yëpp dem di seet ñu accusé doomu jàmbur te kenn gisul ci moom benn preuve jusqu'à preuve du contraire man j'ai à toutes les audiences waaw dañ ko war a yóbbu foofa Sénégal yi dem di déglu ba xam am na wala amul mais je suis soulagé c'est vraiment facile de le dire c'est facile de le dire quand ton ton aux Sénégalais parce que ñun daal ñu ngi toog di xaar loolu ça n'engage que sa propre responsabilité Sénégalais yi daal dañoo bëgg dossier Petro-Tim leer nañ ba mel ni midi c'est ce qu'on cherche